alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah ajaa'ibuhu baanat garaa'ibuhu buntab ku dem ziyaara ji aw nit te dogut fo ñoom mu ne solo nañ jëlee ci anas mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa dugg ci umu suleymin jabaram maanaam dugg na seen kër umu suleymin indil yonent bi tàndarma ak diw yonent ne delloo leen seen diw googu ci mbuusam delloo leen seen tàndarma ji itam ci mbuusam man dama woor mu ne daal di jóg dem ci benn koñ ci néeg ca néeg ba julli julli goom xam ne du jullik farata daal ñaanal umu suleymin ñaanal itam ñooñ néegam mu ne umu suleymin ne ko yaa rasulallah man day damaa am asxaajo mu ne ko lum lum do mu ne ko sa bëkk néeg bii anas mu ne yonent bi bàyyiwut xiiwu àllaaxira walla wu àddina lu may ñaanal na ko anas ba wax allahuma arzuqhu maalan wa waladan wa barik lahu ne yàlla yàlla na nga ko wërsëgal alal yàlla na nga ko wërsëgal ay doom yàlla na nga ko barkeelal li nga ko wërsëgal itam anas mu ne moom bokkoon na ci ñi ëpp alal ci lansaar gannaaw bu ko yonente bi sallallahu alayhi wa ñaan googu mu ne umaynatu doomam wax na ne suulal nañ anas ba xajjaaj ji ñëw basra téeméer ak ñaar fukk ak lu topp hadis bi mooy dinañ ci jëlee ne dagan na pour su la nit addiyaale nga delloo ko addiyee ji tew kan kan ka joxe woon aji addiyee ji warta mer te moom itam mu jëlaat ko duut ne dafa joxewoon woon dellu ci lim joxe woon ñiyee ngi nii teewalal nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàndarma ak diw yonent bi delloo leen ko te xoor gam ooroon moo taxoon mu delloo leen ko loolu benn tëkkalluf nekku ci delloo gu mu leen ko delloo itam tëkkalluf nekku ci mu ne dinañ ci jëlee itam Malben radio garde ñam ci kër ci lu duut ëppal pour su la gan bettee nga am loo ko jox danañ ci jëlee itam ne nit war naa julli balaa ñaan maanaam jiital julli ba pare soog ko ñaan sa borom danañ ci jëlee itam ne nit mën naa ñaan xiwu àddina ak iwu àllaaxira mën naa ñaan itam yàlla may ko alal mën naa ñaan itam doom loolu du dàqoonte ak yiw àllaaxira yow wi nga ñaan yàlla lii duut àllaaxira waaye gannaaw yonent bi sallallahu ñaanal na Anas te dayu wépp benn iwu àddina wala iwu àllaaxira lu may ñaanal na ko ko kon yii itam dafay dugg ci yiw àddina yooyu nga xam ne ñaanal na ko ko te du yàq ca yiw àllaaxira ya nga xam ne ñaanal na ko dara mooy ne ci jëlee itam ne limaam maanaam buur mën naa dem ziyaare ji ñoñam mën naa ziyaare ji peuple bi yonente lim jóg rek dugg kër ënës dagan na itam buuri jullit bi wala ki nga xam ne moo ilif mbooloo bi mu dem ci kër kenn ki nga xam ne ñooy caawo bi dem ziyaara ji ko ci néegam ci li yonent bi def nii sallallahu alayhi wa sallam solo nañ jëlee ci amran ibnu xusayn radiallahu anhuma mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa laaj benn góor te Imran mi ngi dégg mi ngi dégg laaj laajte bi ne ko yaa fulaan ama sumta sarara haza shahr yow diw ndax wooroon nga mu jëg weer wi li tax ñu tuddee ko sarara haza shahr mooy ñetti fan yi nga xam ne weer wi def ci làpp maanaam su weer yu xëyee nga xam ne duñ ko gis ci guddig ñaar fukk ak juróom-ñett ñaar fukk ak juróom-ñeent moo tax ñu tuddee ko loolu ndax li weer wi nëpp mu ne yonent di daf ko laaj ne ko ndax wooroon nga mu jëg weer wi ci ci ci riwaaye xadis bi mu ne dafa foog ne ramadaan la yonent bi doon laajte mu ne ko déedéet wooruma ko mu ne ko kon nag soo dogee na nga woor ñaari fan ngir fayee ko bés boobu nga dogoon ci mujj ak weer wi ñiy warante ne ndax ramadaan la ko doon laaj ñi ëpp ci borom xam-xam yi wax nañ la laaj teewul ramadaan ndax ramadaan daf ko war a oor min al bidaayati ila nihaaya fa mu dalee ba feeru weer wa commencé fenkee dafa fa weer ba ba ñuy gisaatee weeru korité comme li wax na suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi waxtu bu ngeen ko gisee woor leen waxtu bu ngeen ko gisaatee dog leen kon laaj teewul weeru koor waaye koo xam ne dafa am waaye aayewoon na itam ne bu leen jiital bés wala ñaari bés njëkk ramadan waaye koo xam ne nag sa aada la woon ngay oor bés ngay oor ñaari bés yooyu ci mujj ak weer xëy na kii def caa bokk moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko wax ne ko suñ dogee na nga oor ñaari fan pour fayee ko bés boobu ndax wax nañ wax nañ ne bés boo woor ci chaabaan dana tolloog ñaari bés yoo xam ne bokkul ci shaaru chaabaan maa ci weneen weer moo tax mu ne ko soo dogee na nga woor ñaari bés faye ko bés boobu nga xam ne dog nga ko ci caabaan bunta koor woor bésab ajjuma mu ne ku xëyee koor bésab ajjuma dog war na ko jaabir mu ne wala abbas mu ne laaj na jaabir radiallahu anhu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa aaye woor bésab ajjuma mu ne ko waaw daf koo aaye mu ne lim aaye lim lim jublu ci aaye gi itam mooy nga beral ajjuma gi koor gi ndax xadiis bii ci topp bu wax ne laa yasuumu ahadukum yowma aljumaati illa yowman qablahu aw baadahu bu kenn ci yéen woor bésab ajjuma lu may dafa fekk mu oor alxames boole kook ajjuma ji wala su ooree ajjuma itam boole ko samedi ji mu ne yonent bi sallallahu alayhi dugg na ci juwayriya bint alxaaris radiallahu anha fekk ko ci bési àjjuma mu woor itam mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj ko ne ko ndax wooroon nga démb mu ne ko déedéet mu ne ko ndax danga nga woor ëllëg mu ne ko déedéet mu ne ko kon nag dogal juwayriya moo solo loolu nee na ba ko yonent bi dogloo itam dog nta jagleel ay jëf ñeel lenn ci bés yi alkamata mu ne dafa wax ndey Aïcha radiallahu anha ne ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa daana beral ay bés lenn ci jëf mu ne ko déeréet kaana amaluhu diimatan yonent bi lu mu daa def rek daf koy saxal wax na ci beneen xadis ne xayrul amali adwamuha li gën ci jëf yi mooy jëf ci ngay def tem sax moo tax xadis bale wéy ci daa woor mu jëkk weer yonent bi laaj ko ne ko ndax woor nga mu jëkk saabaan mu ne déedéet mu ne ko kon nag suñ dogee na nga woor bés na nga woor ñaari bés fayee ko bés boobu nga xam ne danga ngaa faraloon di ko oor danga ngaa di ko oor te ooroo ko ndax benn bés ci Chaabaan dafay tolloog ñaari bés ci lu doowut cheru ndax mu dëppoog lii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne looy def ci jëf yi rek na nekk jëf joo xam ne da koy saxoo yonent Ndey Aysa teg ci ne ana kan ci yéen nag moo attan li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ci mu ne sidna Omar ne ñaari bés yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tere ku leen woor muy bési korite maanaam suñu wooree ba koor gi jeex bés ba ñuy julli korite bés boobu yonent dafa aaye ñu woor ko bés ba ca toppitam mooy bésu tabaski ndax bés boobu bésab lekk ci suñ tabaski la moo tax yonent bi sallallahu alayhi aaye ne buñ ko woor moom itam solo nañ jëlee ci abu saïd radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi aaye na ñu woor bési korité comme ni hadis bi waxoon léegi aaye na itam ñu woor béseb rendi ba muy bési tabaski bi ak itam aaye na nit làmboo benn benn mbubb nga xam ne dara doxut digganteem ak asamaan lu may mbubbam moomu loolu itam yonent bi aaye na ko aaye na itam julli gannaaw suba ak julli gannaaw julli tàkkusaan gannaaw julli suba ba ba jant bi yëkkati ko yonent bi aaye na sallallahu alayhi ne kenn warta julli ci waxtu woowu gannaaw julli tàkkusaan itam ba ba jant bi soowee yonent bi aaya na ne buñ ci naafila benn naafila bunta woor bésab rendi maanaam bési tabaski mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ñaari koor yi ak ñaari jaayante yi ñaari koor yi mooy bési bési bési korité ak bési tabaski ak sànniyante ak làmbante solo nañ jële ci ibnu omar mu ne dafa am góor gu nisër ne dafay woor bés bi mu nisëroon ne daf koy woor nag ne altine laay oor mu tombeeg bési iid yàlla wax na ci alquran ne wal yuufu nuzurahum liñ nisar nañ ko def yonent bi aaye na léegi oor bés boobu bési ayit bi kon nag li muy def mooy na dog bési ayit bi te woor beneen bés fayee ko bés bi nga xam ne moom la nisaroon bu taxaw taxawaay booba hadis bi ci topp mu ne abu saidin al xudri radiallahu anhu mu ne teewe na ñetti njàngal ak yonent bi sallallahu alayhi wa teewe na ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fukki njàngal ak ñaar dégg na ci yonent bi ñeent si yëf yoo xam ne yéem na ko mu ne yonent bi ne na jigéen warta tukki doxab ñaari fan lu may moog jëkkëram ñoo ànd walla lu mooy moog armanteema ànd yonent bi tere na itam woor ñaari bés yi mooy bés yi iidil fitr ma bési korité ak bési tabaski mu ne yonent aaye na itam julli naa fi la gannaaw julli suba ba ba jant bi taxawee wala fenkee aaye na itam naa fi la gannaaw julli tàkkusaan ba ba jant bi sowee mu ne yonent bi sallallahu wax na ne duñ takk gawar yi lu may jëm ci ñetti jumaa masjidul haram mooy juma jële ca màkka masjidul aqsa mooy juma jële ca baytul maqadis ak juma am ja ca medina moom la wax ne ak suma jumaa ji alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah